عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى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 بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلونهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين اثنين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى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 واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد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 wa له anna أن محمدا wa ورسوله amma بعد mbokki jullit yi ñoo ngi leen ziar di leen nuyu di leen baalu aq di ñaan yàlla yal na yàlla taxawu réew mi taxawu àdduna bi defal ñu teraanga defal ko mbooleem képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah di nuyu tamit ñi ci hôpital yi yal na leen yàlla defal jàmm ñu wér ak jàmm ba dellu seen kër yi dellu seeni njaboot ñi ci kaso yi tamit yal na leen yàlla defal jàmm defal leen yërmande ba ñu génn ci kaso yi dellu seen kër yi ci barke alxuraan karim ci barke Seydina Muhammad bu loolu paasee tamit tey moom dañoo ñëw ci actualité li nga xam ni mooy daw ci réew mi nga xam ni moo lëmbe àdduna bi kenn mënatula noy kenn mënatul a def dara muy rey bi rey bi moom tey moom dinañ ci indi ay leeral yu leer nañ ak ay xadiis ak ay leer nañ yoo xamante ni bi yii yàllaa ko wax parce que boo xoolee jamono bi semaine bi passé rek li ñu rey ci ay nit weer wi sax laay weer wi ñu nekk nii rey nañ fi ñaari nit yoo xamante ni bii lu ko waral daray loo xam ni bakkanu topp bakkanu àdduna moo tax yàlla luñ lu ñu wax lu ne nañ ko moytu bàyyi ko xel lépp lu yàlla wax rek am na fu mu ko teg dégg nga fa mu waxee ci aaya ba suratul xasri yaayu lazina amanu taqullaha yéen ñi ragal yàlla ba pare gëm yàlla wal tanzur na ngeen xool nafsun bakkan bëgg na bëri na doomu aadama lu muy dugg ci musiba bakkan na ko ci dugal alal tax nga rey nit banex tax nga rey nit tek ko fan te lepp fi ngoy baye bo de motax yalla lepp lu mu wax ci alxuraan rek amna lu tax mu wax ko amna lu ko waral fee la ni ya ayyul ladzina amanu taqullah yen ñi ragal yalla gem yalla xol leen bu baax seen bakkan lim leen jital ci lu baax la waral ci lu bon wal tanzur tamit na ngeen xol nafsun bakkan bu ne ma qaddamat la mu jital te yalla ni wama Yalla ni waman yaqtul mu'mina muta'ammidan yow nga jital sa àdduna rey yàlla sàcc agressé violé rek ni lol rek moy sama aduna te yalla xaraamal lepp tere lepp tek ko ci ay aayu leer nañ ci bir alquran ni jël ay ak lepp sanni ko fele ni ray ni tay bax violé bax lolou nak mom ah ñi nga xam ne société bi ak àdduna bi war nañ cee am ay taxawaayu leer nañ yoo xam ne dañ ko ci jël parce que rey nit gi bëri na violation bi bëri na lépp bëri na te lépp lu ko waral leen li alali àdduna la te alali àdduna fi nga koy bàyyi da xool bi ngay dund ak fi ngay dee maanaam liggéeyal yàlla xaj na fi def lu baax xaj na fi nañ ñaan yàlla nag bu ëllëgee képp ku dajeeg yàlla bu ruus ah ñu bax ñëpp day muy sëriñ ci mom baram Touba maam alaaji malik maam buggoon na jaasaan lool rek lañuy diggal digal nit ñi ñu bax ñi waxit lool lañ bëgg nit ñi doxé mais sénégal fiñ toll ni danaka ray bi moom wax dëgg yalla moom dégg na joyo torop te motax yalla lim wax ci alcorane du deñ ba aduna yu tukki amna ci ño xamni nak gëm nañ ko waye amna ci ño xamni nenañ lool mom lepp moom la yam ëlëk yowmal xiyaam amul te yowmal xiyaam ak am motax yalla mu ni ci alxuraan yaayu lazina amanu taqullaha yen yi nga xamni ne gëm ngeen yalla te ragal yalla wal tanzur na ngeen xool nafsun bakkan bu ne maa qaddamat la mu jiital li ngir ëllëg waa léegi yow sa dossier yépp bu ñu xoolee sa kay li nga jiital lépp rey nit la ak violé waa léegi yow bu ëllëgee boo taxaw yàlla looy wax ñu ngi leen soññiwaat ci wàññi wàññi leen ray bi ray bi moom du yoon moom wal tanzur na ngeen xool nafsun bakkan bu ne maa qaddamat la mu jiital li ngir ëllëg wattaqullaha ragal leen yàlla inna allaha naka yàlla xabiirun aji dañ kumba bi maa taamaloon na ci li ngeen di jëf képp ku yaakaar ni dangay ngay def lu bon te yàlla gisuloo ndax nga sa bopp gis na la gannaaw caméra yi tubaab yi defar rek ñoo gis ñëpp asamaa ki nga xam ne moo yor caméra bu mag bi ñëpp lay gis. te tamit waxat na ci beneen aaya boo xam ni aaya bi mu ngi nekk ci saari kaw yi mais yàlla tamit wax na fa wax ju am solo te nit ñi tamit war nañ koo bàyyi xel. waman yaqtul képp ku rey mutaamidan te fekk yaa tey waxul boo ko teyul. rey boo tey ak boo teyul nag fii ci Sénégal mënuñu koo xam boo reyee boo reyee yépp dañ lay tëj ñoom mais yàlla xam na ki jël intention rey ak ki jëlul intention rey moo tax mu ni waman yaqtul muminan mutaammidan ab jullit bu reyee te tey ko fa jazaauhu jahannam waaw sax fay mooy sawara xaalidan fiiha da nga fay sax ba faw waa léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo woote woon ni ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah gëm nañ yàlla gëm nañ yonant bi xana kay ku gëm yàlla di nga def ay ay ay ndigalam ku gëm yonent bi nag di nga bàyyi ay terem waaye gëm nañ ko waaye wóoluwuñu yàlla wóoluwuñu téere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu wóolu bànneexi àdduna rey nit gi ëpp na mbëggeel ndaa mën a nit mbëggeel kese rek rek rek nopp naa xale rek rey naa ko loolu yomb na xoolaat leen li ngeen di def waay ak góor jigéen bi moom war nañ cee wax moom góor jigéen bi moom lëmbe na monde bi te kenn du ci wax bërki dem laa dégg ñu ni Tiwaawan am na xawma Tiwaawan ndax am na fu ñu wax daal nii am na fa ab sëriñu daara bu jàpp muy violé loolu moom kooku du sëriñu daara sëriñu daara yi violé wuñ sëriñu daara yi jàngale alxuraan la ñuy def parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ki gën ci nit ñi mooy ki xam alxuraan ba pare di ko xamle ki xam alxuraan ba pare di ko xamle yaakaar naa ci sama xam-xam bu ndaw warta ubbi daaraam di jàngale ba pare jajami jàngal mu ci sàkk ku muy viole xanaa amul rakku ju jigéen wala xarit bu jigéen wala mbokk mu jigéen wala soxna sax nañu xoolaat sëriñ daara yi li ñuy wax ci ñoom am na lu ci ëpp loo xamante ne bi ñu bokkul ci ñoom dama bëgg nag ñu xoolaat suñu diggante ñun doomu aadama yi ak euh, société bi yépp ku ci ne li yàlla wax ci yow ni nangam la bëgg ñu doxale ko àdduna waxe ko ni àdduna jëfe ko ni àdduna ku ci ne jàngale nañ ko ci biir alxuraan hadis yi wax nañ ci boroom xam-xam yu mag yépp d'accord ci d'accord nañ ci ni wax yàlla moom dëgg la parce que alxuraan ci yàlla yàlla moo ko mënoo wax ni benn sëriñ moo bind alxuraan wala benn yonent moo bind alxuraan parce que alxuraan moom wax yàlla la alxuraan huwa kalaamullah allazi bi biha ila nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alxuraan yàllaa ko wàcce te ci seydina muhammad la ko wàcce sallallahu alayhi wa sallam te ñun ñii société seydina muhammad lañ bokk ummatu muhammad lañ bokk gannaaw yàlla moo ñu wàcc ci Seydina Muhammad bëri na ay jamono yoo xam ni avant yonent bi sallallahu alayhi di wàcc yonent bi sax ñun yonent bi sax yàlla moom la xaw rus am cër bu mu ko may moo tax yàlla alaguñ ñun parce que yàlla ñi mu alagoon bu njëkk ñépp daanaka li ñu doon def ñun daanaka moom la ñuy def fi ñu nii góor jigéen ya amoon na jamonoy luut luut yonent la woon rey nit firaaw na dalaan rey nit amoon na ci jamonoom yunus yàlla la mu ko tere woon mu bañ ci ay mbokkam defu ko weddi ba mu ñëw nag ci ñun nga xamante ni bii ni yàlla dañoo tànnal ab yonent mu ni xayrul xalq muy Seydina Muhammad lu bari bari na loo xam ni yàlla da ciy ruus Seydina Muhammad pour bañ koo def waaye ruus gi nag tegu ko lenn ci lu dul charte yi mu waxoon Seydina Muhammad mu defal ko ko ba mu gërëm ko ci biir alxuraan ba mu koy wax ni ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina lislaam gërëm na la yu bari yoy ak fan yoy ak xalaat yi nga xamanteni bi ni nit ñu baax ñi nekkoon nañ ko di ko def suñu aduna bi di xeex ak tubaab bi ba jële fi caaxaan teg fi dëgg ñun ñu ñëw xawma xaalis bi la xawma bëggub nguur la xawma lan la ba fi toll tubaab bi not ñu not goo xamanteni bi ni lépp loo xamanteni bi ni bëgg na ko rek ñun dañ koy def te bu ñu toppoon mag ñi yi nga gis fii yépp mu xew ci ay jamono léegi-léegi ni xew woon jamono mag ñi parce que ñoom alxuraan lañ gëmoon ak waxi yàlla wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak waxi ñu baax ñi ñun nag daanaka jële nañ ko fi jëlee nañ ko fi parce que àdduna bi léegi boo xoolee maanaam alxuraan ji néew na doole trop waaye tamit mënta néew doole trop parce que alxuraan moom wax yàlla la te yàlla nee na inna nahnu naka man naka ñun yàlla nazzal naa ñoo wàcc alxuraan wa inna lahu la xaafizun te ñun yàlla ñoo koy sàmm ku ci ne tey jii boo amee sa lu mu mënta doon sa alal ak lu mu mën doon yaa koy sàmmal sa bopp waaye alxuraan moom sunu borom yàlla moo koy sàmm te sam ga sax mo gëna wor sam gi ñi sam ñun suñu alal yi parce que alxuraan mom waxu yalla la waxi nit waxi Macky Sall Macky Sall dina ko sam ak ñam ko séqal mais waxi yalla mom yalla mo koy samal bopam ma bëggon nak aduna bi ñu xolaat ni ñi doxale ak ni ñi xalaate ak ni ñi terbi bi yow gis nga feebar bi nga xamanteni ni ni mo dugg ci rew mi ñu koy wax coronavirus coronavirus feebar la waw lu ko indi kenn xamu ko de kenn mënta nangamu ko indi mais nak ñi nga réew mi amna yuñ ci wax yo xamni nenañ ku def nangam ku def nangam yalla mën na def nga mucc ci febar bi léegi nak yow da ngay sangop ci yow ndox ki la tégal paru ndox ni la gëna a la set koku da bëgg nga set té boy xol ci l'islam julli sangu farat lepp lepp ci l'islam bala bala nga ko def da nga wara set Premier ponk ci l'islam moy an nazafatu min al iman set dafa bok ci gëm yalla bo setul mëno julli bo setul mënoo wor bo setul mënoo nak azaka manam set mo ëmb diiné kon nak yow mi sango ci yow ndox nit ki ni la jël paanum ndox sango ko da bëgg nga gëna set ma bëggon nak xew-xew yi xew ci jamono ji nit ñu bax ñi di ci digle lu bax def leen ni def leen ni ñepp yow lañ ñun rek lañ andal parce que fever bo xamni 24 heures ngay xamni dugg na la kon man na la dugg te do ko xam ma bëggon nak li nguur gi wax ak li ñu bax ñi wax ak ñepp ngeen euh, def ko jëfandikoo kotol yeeg ordre sawel yeeg yooyu parce que baax na ci lépp loo xam ne dalay moytuloo feebar bi bañ laa jot ñu def ko rek te yàlla tax parce que feebar bii kenn xamul lan la waaye nag man li ma xaw a jàpp tamit sama xam-xam bu gàtt mooy ni te ñoo delloo si waat xel ci yàlla boolewaat àdduna bi yépp nekk benn mënta nekk benn boom parce moom bu neexoon yàlla lay nekk benn parce que yàlla wax na ci alxuraan yi walaw shaa allahu man yàlla day bu ma sooboon la jaalakum mbooloo mi yépp ummatan waahida ma def leen benn mbooloo ba tàmbalee ci maam aadama ak ba ci ñi mujj ma def leen ñépp ñu nekk benn mbooloo gëm seydinaa muhammad gëm ma man yàlla mais walaa yazaaluuna muxtalifuun wuute gi du deñ de wuute gi ñii jëm fii ñii jëm fii mënta deñ ba ilaa yawmi diin du deñ waaye nag wuute gi wuute gi ñoo bokk seydinaa muhammad bokk yàlla parce que sa sunu maam borom tuubaa yàlla lay wooteel alaaji Malick yàlla lay wooteel bu Gunda Njaasaan yàlla lay wooteel bépp imam boo xamante ni bii nii ci réew mi la nekk nekk kilifa rek yàlla lay wooteel te ci ginnaaw Seydina Muhammad lañ tënku fas yéene tamit képp koo xam ni danga gëm sa sëriñ te sëriñ tënku ci yàlla tënku ci Seydina Muhammad nga fekk si ko ci loola walizalika wa xalaqahum yàlla nee na loolu yépp man yàlla maa ko sàkk wa tammat kalimatu rabbik ma matal sama benn wax sama benn yàlla alxuraan mooy waxam te bépp sëriñ buy bindu téere ci alxuraan boo koy jëlee hadis buxaari imam muslim ñépp kuy bind téere ku ne ci alxuraan nga koy jëlee parce que boo calculul alxuraan gis nga portable ni ngay bëgg a binde prestige Thiès al ihsan alxuraan ni ngay programme bind ci li nga bëgg a bind ci yàlla ak bind ko ci programme yi gannaaw tubaabu man lool asamaak sunu borom miñ sàkk boo bëggee composé mawahibun nafia bu sëriñ Touba da ngay composé ci alxuraan jeli harafak ak xaraf boole téere boobu mu ñëw gannaaw tuba man noonu asama ak yàlla kon nag mbokki julit yi nañ leen fàttaliku yàlla buum gi genn buum kese la muy limi li muy rëy rëy li muy tuuti tuut ñu koy xeebu ko néew yàlla xeebu ko yonent bi xeebu ko sëriñ yu baax yi nekkoon ci àdduna bi kenn xeebu ko ci dencee ngooy bu dëgër ànd ak moom ba ilaa yow mi diini moo bu njëkkoon la daan am bu njëkkoon amatul léegi li am léegi amul woon bu njëkk coronavirus agola yooyu amuloon ci jamono sëriñ si boo boo déggee ku dee sax bala nga koo déggaat day yàgg mais ñun fi ñu toll yooyu li nit ñi li ñuy dee sax ñoo ëpp li yooyu dee xoolaat leen loolu yàlla wàcce suufam sii ak asamaanam sii asamaan si da koy xool ba nga juddoo ba tey asamaan si musta xar musta màbb musta def dara lépp mu ngi normal toujours nga dégg Europe renversement de day am de jékki-jékki xuuf si xar jëm na la nit ñi dugg yàlla kabalewaat ko ñun nak nañ sant serigne su baax musa am senegal ñun nenañ nañ gëm nañ yalla me wolu wuñ ko da ngay gis pap saw mi jublu aw yoon wara dem yalla ni fi lay jaar dem gani alam mik du baax du dem taxaw ca kanam nak yor say mol da taxaw di xaar alaykum nak nga ngad ko mu tok nga yaakaar mom nga ngad ngad ko sa bop nga ngad parce que bu demoon amana man nga te jariñ waye ngad nga ko mu arrière yow sa affaire yep yakuna ndax lan soxor te ñun ñoo ni innamal muminuuna uxwa naka ñun jullit ñépp ay mbokk lañ fa aslihu bayna axawaykum nañ rafal diggante bi mu rafet waaye muminuuna gi dañ ko wax ci làmmeñ mais àggul ci xol am na dëkk boo xam ne nag yàlla mayoon na leen mais da leen bugg da leen a mujj mbugal ma nga ca biir alquran walaw anna ahlal qura walaw na ahlal qura waa dëkk ba dëkk bu la neex nga joxe exemple waaye yàlla waxul ca dëkk yàgg ya la wax walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw gëm nañ yàlla ragal nañ yàlla la fataxnaa man yàlla ma ubbi leen alayhim ci ñoom dëkk ba barakaatim min assama barke boo xam ne ci kaw asamaan la jóge wal ardi ak suuf walakin kazabu waaye nag ba ñu weddee yàlla fa axasnaahum ma jëlaat la ma leen joxoon bi ma kaanu ca la ñu nekkoon yegg si bu na di ko fàggu muy alal man exemple bu ma noxee ma joxe exemple ci ci coronavirus bi kenn dematul fenn école yi tëj na marché yi ni mu doxe woon xaalis beeg di ñu daan ñëwee lépp Europe moom Sénégal sax tane na jaay ko jën yaa ngi jaay ñëpp a ngi liggéey mais Europe demal ñetti nit fu ñu dajaloo police jàpp yóbbu waaye léegi kon la yàlla waxoon waa dëkk ba la ñëw na ci ñun dara mënatu la sotti ndax coronavirus bi te dégg Sénégal a gën a dëgër bopp ci àdduna bi loo leen tere duñ ko def loo leen wax duñ ko def loo wax ñu ne ay noir lañ noir ba ci lañ. noir du dee xanaa ñii de kay yàlla sàkk na de dee almawtu baabun wa kullu naasi daaxiluhu yàlla ko wax ak bunt la képp kuy dund ku ne di nga jaar ci bunt boobu ma leen di ñaan nag nañ leen xoolaat fi ñuy taxaw ak li ñuy def te déglu ñi ngànk réew mi li ñuy wax ci feebar bi yal na ci yàlla musal mu mucal si àdduna bi yépp te ñu déglu sëriñ si déglu boroom xam-xam yi maanaam lépp loo xam da lay jëmale kanam de ko deglu ci ñi koy wax ak ñi koy jëfandikoo ordre Sahel bi gën leen koo fonk ndax virus bi nu yooyu nag moom wàññil leen ko alaykum rek nii doy na ñun la alaykum salaam moo gën parce que l'islam moom bëgg na bëgg na set trop waaye nak dafa am lu xew li xew nag kenn mënd ni ab feebar la kenn mënd nangam daal waaye daal ñun daal jàpp nañ ñu feebar la parce que am na mu dal liñ leen ci wax ngeen xam ni boo leen ko defee yàlla mën a def ñëpp mu jël ci Sénégal mu jël ci àdduna bi yépp def leen ko ci barke alxuraan karim ci barke Muhammad àdduna bi nag jeex na ba pare waaye daal man li nekk sama yitte torop ñu wax ci ray bi ray bi moom met na torop torop torop torop ray rek am man fi tol toll man mën ngaa toog weer doo dégg xar mu ñu ray wala nag ñu ray mais nit ñi moom comme xar rek ray rek ray rek ci lan teguñu ko dara ci alal ak bëggante lan mooy bëggante da ngaa bëgg nit bëggat la wor na la dem na ci keneen xuwalil keneen jigéen ñi duñ jeex duñu xaaj alal nag moom ku mu tax nga rey nit boo demee ci yowmal xiyaam di nga xam ni yàlla lépp dëgg la lépp moom di nga xam ni yàlla moom na pour tout li may sama waxtaan bii nii mooy inna allaha naka yàlla yamurukum digal na leen antu addul Aman ba ngeen joko wóolute kóolute ila ahliha gis ngeen li wax ila ahliha ci waa kër wa isa xakamtum booy àtte bayna naas ci diggante nit ñi an taxkumu na nga àtte bil adli ci maandu loolu nag ñi jàng tubaab ak ñi jàng alxuraan ak tuu ñépp la ci yàlla waxal tuu même ku jàngu sax yàlla wax naa yow foofu nit ki booy àtte àtteel ci dëgg ci li yàlla wax parce que yàlla nee na waman lam yaxkum képp kuy àtte bi ma anzala ci li yàlla wax fa ulaayika yow moom humul kaafiruuna yéefar bi manam yalla ni ni la bëgg nit atté ko nga atté façon benen bo xamanteni bi ni deppol ak li yalla bëgg ñu atté ko nonu nga atté sa bakkan ak lu neex yalla neena na ab kaafirun nga fi mu ni faasiqu nga fii mu ni ab kan nga mais nak fi mom dafa ni an tahkumu na ngeen atté bil adl ci ci ci ci ci manuté boy atté ma kumba di atté Malik ñom ñaar xolal ki tooñ nga nga jox ko deugam bul xol ni Malik sama xarit la mo tooñ ma kumba c'est pas normal doxale wu nonu yàlla moo ñu fi wàcc ñun ñëpp bu ko neexoon lu ko neex def mais dafa bëgg ñu maandu ci suñu diggante ñun ñëpp ku ci ne la ngay def yàlla moo xam la sa moroom def yàlla moo xam waaye nag am nga droit wax ak moom parce que yonante bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan wax xadis bu am solo man raa minkum munkaran fal yuxayirhu bi yadi fa in lam yastatix fa bi lisaani wa in lam yastatix fa bi xalbi wa zalik adaful iman man raa képp gis yéen munkaran lu bon fal yuxayirhu na nga ko sopp bi yadihi sa loxo boo mënta sopp ci loxo fa bi xalbihi boo mënta soppi sab xol mooy naqarlu ko jooylu ko sunu borom ñaanal ko boo ko mënul nga maandu mooy wa zalik adaful iman loolu mooy matal gëm yàlla mu ni nag inna allaha naka yàlla kaana nekk na samian aji dégg basiran aji gis yàlla kenn mënu koo nëbb kenn mënul def dara loo xam ne ci àdduna maanaam nëbb nga yàlla parce que yàlla doomu aadama bu ci ne boole na la ak ñaara malakaane ñaari malaaka yàlla boole na la moom malakaani an yaminin wa shimal raqib atid mu ngi nii raqib atid ñaar la la booleel bii mooy jëf lu baax mooy bind lu baax bii lu bon kon nag yàlla moom noppi na pare ñun ñoo fi nekk dem sëriñ di takki téere def lu ne mais ñaanlu nag mën naa am mën ngaa ñaanlu parce que yàlla moo ko wax ud'uuni astajib lakum ñaan leen may leen ku ne mën ngaa ñaan waaye tamit bul fàtte ni yàlla boole na la ak ñaari malaaka yoo xam ne ñoo lay ànd yow guddeeg bëccëg yàlla moom boole na ak ñoom moom parce que yàlla moo ëpp sécurité àdduna bi ونحن اقرب اليه من حبل الوريد تي سوره القاف يالا واخ سين بوم خولي من ما كو جيغي غنا جيغي لي غاي خالات اك لي غاي بغا خالات اك لو مونتا خالات تي ادنا بي مان يالا بارينا تي خالات بوبو تيكونا دي خول نا ياو ليغي نوي كونديسيون دا غاي دلتو غيناو ولا دا غاي واخ كون نا موك جولي دي نيوغي يامنا فوف سونو وقتان تاي با الله بي بي نيو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالديكم ورسائل المسلمين ñu ngi gërëm nag sama waa diaspora bi nekk Europe nga xam ni Tere Presse TV la ñuy suivre muy Bas Diop doomu Habib jóob ak Ale ma Ale ak Ale Diop ak Muniru sama xarit ak Bas Lawbe nga xam ni ñun ñoo fawandoo juddandoo yarandoo màggandoo ja Lawbe la bu nekk ci Espagne ak magam Paate Lawbe ñu ngi leen di ñoom ñëpp di leen ñaaral ñoom waa diaspora bi yëpp nga xam ni tele bi la ñuy dundee di ko seetaan yal leen yàlla may gudd fa nag wér may seen soxna yi muñ parce que sedd bi ak sa jëkkër nekk Europe. met na trop waaye nag nañu jàllale may xolum muñ rek di nuyu sama mag Mansour mbay alaaji malik sama ñaari cheikh yi nga xam ni kenn demul ñu des waaw ñoom seen baay la ñuy bëgge muy sëñ dàmbaay ak sama doom Nogay Njaay ak euh, waa ahlu bi yëpp ak sama waa kër turandoo ñëpp ñu ngi leen di ziar di nuyu nag sama kameraman malik Diouf ak Papa saw ak Makumba mi nga xam ni kenn demul mu des man fukk laa mais moo fukkal mu nekk ñaar ñu koy ziar moom tamit di ñaanal yàlla yàlla may ko fa bëgg mu àgg fa yàllaa ko xam yal na yàlla taasu ci barke Seydina Muhammad ñëpp lu waaye di néser ci tele bi di ko bëgg ak parkara bu mënta doon ak martaw bu mënta doon yàlla la ko yàlla defal te yàlla musal la ci seytaane musal la ci noon parce que noonu ay pexem la ñëpp ta xam waaye yàlla xam na lépp parce que moo ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid di ñaan yàlla nag borom télé bi muy Pape Doumbouya DG yàlla na ko yàlla may gudd fan may ko wér yokk atam yu bëri ba li mu nazar ci télé bi moo ko xam yàlla na ko sunu boroom yàlla defal ci barke alxuraanu karim du nuyu àdduna bi yëpp di nuyu kilifa diine yeeg ñëpp jug leen ci Ebola bi wax leen ci jug leen ci coronavirus bi wax leen parce que coronavirus bi problème lay indi rek waaye nag nit ñi tamit bu leen dëgër bopp li leen réew mi wax ak ñëpp def leen ko set bokk na ci ponk yi gën a mag ci lislaam an nazaafatu min al iman waaw set moom mooy première jaamu yàlla wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala 이런 게 이제